Thank you. ni Macky Sall dafa am rapprochement ak Idriss Seck même ba ci euh, ki nga xam ne moo di euh, Malick Gakou tey rek euh, liir nañ ko ci Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly wax ni ñoom ñi ngi gisante est-ce que tey jii loolu loolu wér xam nga tey li may wax mooy en tant que journaliste waru leen di nangu di colporter la médisance du camp adverse ki jóg pour yàqal doomu aadama wala yàqal koo xam dafa jàpp ne kii wujjam la yéen balaa ngeen koy colporter di ñu poser question a bu koy sàng da koy sotti euh, goudron bu ñuul la koy sotti mu ñuul kook donc ñooñu dañ wax seen waxeer lañ yore c'est un faux débat donc loolu encore une fois may lancer un appel aux journalistes ñuy gestu carrément yenn question yi balaa ñu ci ñu ciy addu parce que ki nga xam ne wax na te faru ak nit du wax lu baax du wax lu rafet. ñoom yàgg nañu gisoon nañu élection bi jàll yéen la àndaloon. ñu wax loolu waxuma ko dama ne kooku ka wax da ngay dem moo def loolu ci boppam bu ko def sa bopp man mënu ko def sama bopp mënu ko def sama bopp. te war ko mën def ci bopp Sénégal yi parce que noonu la ñuy defee politique xeeti politique bu ñaaw boobu nga xam ne da ngay jékki rek sos saw sos rek wax ko doo ko teg fenn yàgg na fi léegi nag ki nga xamante ne moom la ñuy ooyee le quatrième pouvoir wala sax le premier pouvoir aujourd'hui mu nekk la presse nga xam ne dans les autres nations qui se respectent c'est ils font des euh, elles elles elles elles jouent un véritable rôle d'alerte de renseignement clair presse boobu noonu lay ñaan man jooyu xol laa koy def ñoom lay ñaan ñuy approfondir la recherche professeur def ay recherche moo tax ñu jàkkaarloo yow mais bu ñu déggee dund gi yokk nañ ko courant bi yokk nañ ko ñëpp da ci wax mais dégguñu benn Idriss Seck wax ci. dama ne la yow ki noppi waxul jàpp njàmburam nga bëgg a toog ne xam naa gëntam mën naa ko wax kooku noonu nekkatul wax sax kooku finalement c'est une provocation. mais Idriss Seck ñëpp dañ koy xaar ci mu wax. non déggoo ma déggoo li ma dama ne la. loolu finalement provocation la xam nga wax ci li réew mi wax ñetti la wax bu jotee waxoo ko nekkatoo ci dëgg. wax bu jotee bu weesoo nga wax ko nekkatoo ci dëgg bu jotagul nga wax ko nekkatoo ci dëgg ba mu jotee wax nañ ko on a suñu premier jour de campagne électorale dañ ne jafe-jafe yi nga xamante ne moom la réew mi traversé bu ñu jógee ci élection yi askan wi dina ko dund mais askan wi a porté un choix sur Macky Sall loolu mënuñ ci dara du tey ñu ngi gunge askan wi ci yar ak tegin du ngi gunge askan wi ak dal di ko encadrer pédagogiquement parce que askan wi rek moo ñu ñor leneen ñoruñu mais tey bëggoo ne mënoo toog yow en tant que journaliste nga ne toog na noppi rek xaaral ma jéem wax gëntam wala xaaral ma def ay supposition loolu nekkul ni journaliste ñoo ko wax naa loolu ne journaliste ñoo ko wax dama ne la journaliste yi lay ñaan jooy xol la parce que ñoo bokk askan wi non te li ñu yore la ñuy approfondir seen recherche ci mbir mu nekk bala ñu ciy addu loolu am na solo dem ñaan rek la ñaan ak yar ak tegin rek laa koy def parce que nag tey dañuy yor réew moo xam ne ñu nekk ñoo ko bokk xam nga tey yomb na tey ma taxaw tey ne nga jox ma sa micro bi ma jël ngañ aw nit wax lu ma neex dem sama yoon xeetu politique boobu nu yow mi nga xam ne jeune journaliste nga ak man mi nga xam ne jeune sénégalais ak jeunes yi may déglu ñun dañ ko war a xeex on doit faire la politique dans la vérité la responsabilité et l'engagement avec une belle équité mën naa ànd bañ a nekk ànd ak ànd ak nit bañ a ànd ak moom bañ a bokk ak moom li ma gëm mais te ma rafetal di wax loo xam ne ni askan wi ko dégg dina xam ne lii c'est plausible c'est vraisemblable sax au moins mais man lu ma neex naa ko wax kii parce que tey bëgguma mu jot ci askan wi bëgg naa yàq xelu Sénégalais loolu dañ ko war a moytu parce que président Idriss Seck du nitu caaxaan jàpp naa ne tey tous les sujets yi nga xam ne askan soxla na ko il les a tout développé donc kooku noonu nekkul koo xam ne ni du caaxaan la kooku aussi nekkul koo xam ne nii nitu mbedd la nii c'est un leader c'est noonu defe naa ne yow mi nga xam ne yow journaliste nga mais boo ko rapproché lu bëri di nga ko xam ci moom te journaliste yi nañuy ñemee rapproché les leaders c'est am na solo bu ñu leen rapproché rek au lieu ñuy foree wax ci mbedd nañ ñëw ñu leader bi ah man kat dégg naa li loo ci xalaat lu mu la ci wax nga jàpp ne loolu mooy dëgg parce que waxu mbedd moom nañ ko bàyyi ko mbedd bi rek loolu la alors gestion nébuleuse du pays moom la ñuy waxtaanee jamono ji yëpp ci réseaux sociaux ak débat yu yëpp euh, loolu moom euh, lan moo ci taxawaayu parti loolu moom taxawaayu parti réew yëpp xam nañ ko li nga xamante ne ay deniers publics la ñu bokk ko. nga xam ne dañ doon askan woo xam ne nii askanu ndool lañu ñu ñuy boole parmi les vingt cinq pays les plus pauvres wala et cetera suñu suñu suñu lépp nekk loo xam ne dafa neew jeune yi di ut liggéey amuñu ko enseignement bi gis nga les grèves ont commencé ont démarré et cetera et cetera les jeunes et cetera peine à trouver du travail askan wu mel noonu li mu am dañ defe naa ne ñi koy jiite buñ sakkanalul loolu waruñ ko mën a jël wala ñu def ko noo xam ne naka su dul yoon kenn rafetlu ko je crois que ces rapports là aussi c'est les lieux pour le président de sévir ñi nga xam ne ñëpp dañ leen si tudd mais ñu rendre compte lay mën a r wu loolu lay wax c'est-à-dire dañu bëgg a diriger Sénégal ah Sénégalais en les rassurant pour rassurer Sénégal yi nag dafa bokk ci képp koo xam ne def na wax xam ne lu dul yoon mais ki ne moo jiite mu rëq ndigam loolu mooy dëgg loolu day tax nga rassurer Sénégal yi te loolu bokk na ci type de gestion bi nga xam ne le leadership nouveau daf ko laaj daf ko laaj loolu la ñu ànduñu ci tey ci ëllëg kenn rafetlu ko kenn rafetlu ko dafa doon lu ñaaw parce que li nga ciy dégg sax dafay jéggi dayoo da ngay dégg ñu naan diw jël na lii jënd ko nangam ci ay millions sénégalais yi nekk fii di sonn ceeb yokku déwlin yokku gaz yokku lépp yokku mais loolu c'est c'est la catastrophe scandale au cœur de la république yow lan moo ci sa bon scandale au cœur de la république euh, ko que liiraguma livre bi dinaa ko ut ma liir ko euh, pour mën a xam li may kif mais scandale au cœur de la république ki livre bi xëy na dafa wax lanc bi nekk ci book gémmuñu ñëpp moom la moom la yàbbi mais jàpp naa ne ñëpp xam nañ ne lii xew vraiment rafetul jeex na loolu la loolu rek la voilà. alors euh, hausse euh, euh, des prix de l'électricité loolu yàgg na ci réew mi. tey nag ñu gën a xool ni dafa fees ci euh, ki nga xam ni moo di président Macky Sall euh, taxawaayu réew mi lan la. bon hausse des prix des prix euh, de l' dafa am ñaari fan yu ñu koy jàngee benn bi mooy dañoo waxoon am nañu ko te foofu noonu Makhtar Makhtar Diop je si c'est là moom lay interpellé moo ne woon am na électricité bu doy ba dinañ dem ba jaayi feneen ñu jékki-jékki tey ñuy yokk kon kooku kan la doon nax xam nga aussi diriger un pays président Idrissa dafa ne. gis nga liy tax entre la relation bi nga xam ne mooy une relation féconde bi mën a productive ëllëg entre kiy diriger ak ñi muy diriger maanaam askan wi mooy que le leader dit la vérité au peuple et que le peuple accepte cette vérité là et que peuple là nekk peuple boo xam ne dootul nangu kenn di ko wax lu dul dëgg jeex na loolu kese la wax nga man ne sa électricité sama électricité bari na ba dinaa dem jaay feneen nga jékki-jékki di ko yokk kon am na ko waxul dëgg nañu bay caaxaane askan askan dafa am solo askan dafa am solo te président Idrissa dafa wax servir maanaam être au service de l'autre mooy jaamu ko mooy jaamu ko wala moom ku fas yéene jaamu askan kooku mooy comprendre la splendeur n'est-ce pas de cette belle tâche là mi nga xam ne mooy l'État li ci nekk ci taar li ci nekk ci morale li ci nekk ci éthique li ci nekk ci vertu moo yaatu ba Platon loolu la waxoon dafa noonu les philosophes doivent diriger la cité ñu ne lu tax mu ne parce que philosophie am nañu sagesse am nañu pondération dal nañu tey nañu tey boo xoolee tous les leaders du Sénégal aujourd'hui qui incarne ce philosophe sage là aujourd'hui c'est le président Idrissa Seck am na pondération dal na tey na ba ma waral tey gis nga ni mu dalee ni mu teeyee te loolu dafa baax ci askan ki koy diriger mel noonu loolu alors euh, affaire Guy Marius Sagna gis na ni sénégalais la ci biir sénégalais yi waaye itam doon lutter ngir ñu wàññi eh, njëgu eh, courant bi eh, tey ji ñu ñun àndaloon doon def manifestation bi ñu libéré leen moom ñu denc ko ci kaso bi yow ban jàngat nga ci am. bon man li may rek mooy doomu sénégalais bu jàpp nañ ko ba je répète doomu sénégalais bu ñu jàpp fekk muy xeex loo xam ne pour sénégalais yi nañ ko ba et di profiter encore une fois di remercier di féliciter suñu collaborateur suñu camarade docteur Babacar Diop bi nga xam ne c'est combattant bokk ci coalition Idy 2019 ci combat bi nga xam ne mëne pour askanu Sénégal ci combat noble bi nga xam ne taxaw nag ci askanu Sénégal joxe léppam pour askanu Sénégal nekk un collaborateur proche du président Idriss Seck docteur Babacar Diop ñu ngi koy encore une fois remercier di ko sargal maintenant doomu sénégalais bu ñu nañ la ba loolu mooy suñu wax. Euh, rapport cour des comptes. président dégg naa mu naa nañ ko teg ci table bi mais rapport bi nañ ko teg ci table bi teg ko aussi ci yoon yëpp loolu rek la ñuy wax waaw di lancé un appel nag encore une fois di di di di di féliciter ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi jóg pour la vérité ñu ngi jog pour la vérité loolu daal moo am solo. est-ce que yaakaar nga un jour euh, ñu def euh, leeral mbir moom bon comme lu bari jaar na fi of nag defoon na fi ay kii avec Nafi ngoom ñu dàq leneen amoon na fi xooluñu ko leneen am fi xooluñu ko bon ñun mënuñu am njort bu rafet. mais nag dañuy lancer un appel parce que suñu responsabilité mooy toujours à chaque fois di alerter mais di lancer des appels parce que ñun nekkul ne li nga xam ne lenge yi yoruñ ko lu ñu mën di wax ak lu ñu mën di tabbi suñuy xol ak yéene bu ñu moon di am lenge yi yoruñ ko on se pose dans la dignité rek au nom et pour le compte des populations mais li ñuy wax mooy ñaaw nañ ci njort am nañ droit wax ko rafetuñ ci njort maintenant on lance un appel au président de la république moo ko bokk du kenn moo ko askan rek ñoo ko moom mu mu mu ku nekk mu jox la a sa niveau de responsabilité mu daanale noonu mu jeex takk oui. réew mi jamono ji nemmi ko ne ni crime yi bëri na lool gis nañ fi récemment Ndioba Seck ñu faat ko ci anam bu ñaaw. yow loolu la nga ci gis. xam nga président Idriss Seck aussi waxaatoon waxoon na ko dafa ne la responsabilité première de l' État c' est de sauvegarder les biens et déglu dama nga wax na ko la responsabilité de l' État est de sauvegarder de veiller aux biens et loolu mooy la mission première de létat te bokk na ci suñuy axes yi ñetti axes yi yoroon suñu programme la bonne gouvernance l'économie mais également la sécurité la sécurité xoolal ñetti axes yooyu la woon xam nga wax nga ma léegi Cour des comptes ñu ñëwoon nañ pour defal loolu loolu dootul am xam nga wax nga léegi mbiru ay nit ñaa ngi ñu ngi leen dire rey sécurité ñun sécurité suñu axe la xam nga économie bi yéen a ngi koy waxtaanee c'est extraverti dafa dafa bitim réew lañ koy yóbbu suñu économie doomu Sénégal jëriñu ko ñun économie moo nekkoon suñu axe ñetti yooyu ñoo nekkoon suñu axe ñun dañuy woon pour defar Sénégal en trois économie gouvernance sécurité point barre suñu programme la woon ci 1 3 15 cinq bi donc loolu mooy la réew mi c' est la compétence avérée c' est ça la réew lu ñu proposé Sénégalais yi rek nañ ko xool bu ñu xoolee ba ci nañ xam ne ngaa yaa ngi ni ndaanaan yaa ngi ni ànd ak président Idriss Seck